journée mondiale de l'environnement ça veut dire quoi que nous devons dañoo wara mobiliser pour que cadre de vie que nous ne ñun ñoo l'environnement ñun ñëpp a ko bokk kenn moomu ko ëpplik sa morom ñoon ak rab yi ak mala yi garab ga rôle bi ñuy ci aduna mom la ñuy joué ci aduna kon donc bu leen ñakkal fu la ñun ñëpp ñun ñoko bok pour avoir un cadre de vie sain il faut que ñu daal di mën a xam nu ñuy donc ma ñëw ci garab l'importance de l'arbre jàng ngeen ko seen classe yi l'arbre moo nuy dundal garab moo nuy may ker l'arbre nous fournit de l'ombre l'arbre nous fournit des médicaments parce que olof beñ na ko ba bu nit ki feebaree ñu ne leen ba naan na garab olof mu ngi méngale médicament ba ak lar ba jox nga xale bi garab donc originellement ñu dañ doon fajooti garab garab day lutter contre le changement climatique nan la changement climatique mooy lan mooy lii nga xam ne mooy réchauffement mooy tàngaayu jaw ji li ko andi tàngaayu jaw ji ñëpp xam na ni ren dafa dafa année yi day tànk

ba ca école ba ba ma tal ko ci bureau ba ba mu utiliser climatiseur ma nga yak jaww ji parce que ma nga yóbbu CO2 parce que amna na centrale boo xam ne Senelec moo koy taal produit pétrolier mu nga yak jaww ji kon donc ñun ñi ñëpp toog fii muy man muy commissaire muy ministre ba muy président ba muy képp ku tal auto ba daw muy préfet ba sous préfet muy monsieur Mal fu ngeen talé auto ba ngeen dugg ci xam ni yeen nga yak yàq jaww ji parce que combustion complète bu yob CO2 mais CO2 bu nan la ñuy def ba lek ko moy ni ñuy jëfandikoo oto nan ko wàññi nanuy bokk lo auto nanuy wàññi li nga xamni gaz yi et mais amna ko xamni nak mom CO2 bobu lay dundé moy kan l'arbre se nourrit de de CO2 à travers la photo la photosynthèse excellent mention bien applaudir donc l'arbre se nourrit de de CO2 à travers la photosynthèse kon on bëggé lutter contre le changement climatique ne ko ne jëmbat garap parce que l'arbre

Euh, euh, euh, au réchauffement climatique donc déboisement bi xale yi xale yi nanuy moytu dagg garab nanuy toppatoo garab nanuy jëmbat garab qui iir garab nan koy toppatoo léegi la pollution plastique sac bi bu ko classe di sensibiliser les yi oh pardon ba ma rek ñu père lu plastique xam nga ñun kon ñun ay jàngalekat lañ te nee naa képp ku nekkul comédien doo mën a nekk jàngalekat nag donc sachet plastique yi man sama kër sachet plastique bu fa dugg fii laa la def. sachet yi sama kër sachet bu fa dugg mu ngi fii sama oto boo demee mbuus bu ëpp bii mu nga bo demé sama bureau mbuus bu upp bi mu nga fa kon man bokkuma ci ñi yàq jën di ray nak di ray xar di ray beuy koku man jël na engagement bob mak sama famille duñ jeté c'est plastique wa mé ngeen laaj ma li nak bo paré lokoy doy ha ah? excellente question lan la koy doy bu ngeen genné ba dem mairie Malika ba bis bu né nak nit ñi romb ko mais kenn gisuko grand place bi bu ngeen fini tok amna ay bouteille 10 litres kiran bouteille kiran

ça plastique bu sama bureau parce que j'ai pris un acte citoyen un acte éco-citoyen de lutter contre le péril plastique donc chacun peut le faire bu ngeen commissariat donc na ngeen ba plastique nan ko dajalé bu négal ñu docteur allo docteur plastique ma rek Saint-Louis Marie Grignon école ils l'ont fabriqué ce qu'on appelle des bancs de l'amitié pour les élèves bo démé ban yépp mom lañ tawaxé élèves yi fa lañuy ñuy ndaysan di waxtaan di nan seen i di waxtaan dal di créer des liens d'amis des liens d'amitié sur l'arbre l'arbre ma ngi wax ci njariñu garab ben bo xamné dama ko faté won mooy les forêts sacrées Casamance bu démé tay ba lël am fa ba tradition bobu mën perpétuer en Casamance c'est grâce à l'arbre xool leen fu leen poubelle gën a ngeen ramasser ko dal di koy denc ba li du lor jeun du lor xar du lor Ken du lor mbam du lor kenn legui dal lol la leen di ñamal tuuti rek li du fi nak wi du mën a ci ci li tay li pour le moment am nuyo la rek ma jox stade bi trois poubelles yi pour que buñ paré li lepp di taxawal ñu def ko ci dina len andi lu mat 40 poubelles ngeen def ko fi commissariat de police ba préfet ba sous préfet ba incha allah andi ay poubelles ba ku nek am ci ba kenn dootu sanni matière plastique école de football di am cinquante poubelles